mbokk yi Doudou Sané ngi noonu la fan série de Diofior borom Diofior a ngi noonu borom kam jeg doole dama am doole ndeysaan mbokk yi mi ngi wax téléphone am ma lay waxal wala kan lay waxal cay Doudou Mor maa ngi lay ziar ba yaa ngi si jàmm le grand tambour major a ngi noonu oh, ama la doon woo nagamu ama la doon tawme Baye Babacar tawme bégee naa noonu noonu tawfee kay sant yàlla bu wër a wër. mais tey naka ngeen waajee. waaw pare rek comme d'habitude comme combat yi rek jox suñu adversaire cër boobu mat sik di ñaan borom bi nag mu mën ndam ci yàlla. combat bi di combat ci biir combat yi. waaw combat gaynde la. kon itamit nañu remplir seen contrat rek mu neex. gis bi sax da ngeen koo changé. comme maanaam. organisation bi sax dafa changé parce que heure doon na fekk ga champion am lu mu sangoo duggaat mais gisuñu ko tey. non non instant yii da kaa jaral quoi lamb bi moo ñu jaral quoi moo tax waaw déwén lamb bi moo toll foofu quoi. lamb bi moo toll noonu. waaw. mais tey ban façon ëmb la mën a gis. ëmb ëmb bu contre kii Gris Bordeaux rek la ñuy waaw kese. dof du wër booba. non combat derby bi daa am ñu koy waajalee quoi wala Yazim. mais bawol bawol yi ngeen amal affaire. bawol bawol la ñu amal affaire suñuy frère lañu suñu lépp lañu waaw fair play la ñu bëre suñu borom may ñu ndam ñu ñibbi kese waaw. gis na ngay contact ak ëmb. ah gis moom. waaw dañuy contact ak liggéey nañu loo moom doole dëgg wallaay azim te bu simee rek ngeen sañee kese. mën nañu xaar combat bu gaaw wala bu lu munti am daal ñun dinañ ko tenir ndaxte itamit waaj nañ li ñu war a waaj pare nañu carrément quoi mais yàlla nañu yàlla suturaal. waaw kese suñ faalu. amul ragal ban message ngay lancé amateurs yi ak supporters yi ñu ñëw ci fair play ñëpp ci fair play. waaw non à la violence. te daanaka itamit mbër yu bëri amuñu violence seen public yëpp dañoo dal muy tax côté Tapha Tine muy côté Eumeu Sène ah, du am benn violence dañuy ñëw si jaamu ñibbi si jaamu. acca ren di jéggi. mais Doudou léegi bi claf bi kañ lay ah, commencé claf bi. le 4 février lay commencé incha allah. kan ngay njëkk a bëre. Euh, non non tiré guñu quoi. mais le 4 février mais ñu ngi woo ñëpp nag. Doudou fi nga dugg xam na de. ah fi nga dugg metti na. non lu metti la ñu bëgg. lu la ñu bëgg ay ndaw la ñu. te ay taalibe Sëriñ Fallu la bu ñu namee am lu yomb rek. day xaw a da laa yónni. waaw kese mère daa soxla. waaw te bu soxlaa ñëppay ñàkk. non taawul mère bi dañ kaa sa digganteeg sa yaay. Ah, relation relation bi la ñuy rek mu toog kër ga. taawul bi waaw la ñuy dajji mu toog kër ga. kese wallahi azim bu ñu amul loolu rek defaguñu lu ñu war kese. billahi yàlla ñu yàlla suturaal ok ya jaajëf yàlla suñu borom bi na ko si yàlla may ndam Eumeu Sène day xale bu yaru bu baax bu jox nit cër yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam bu gaaw si kaw tafaatin di ñaanal uh, Ama Baldé tamit li mu perte nii yàlla na ko yàlla jox xale la bu mu découragé booy ñaar tamit combat bi mu jëm yàlla na si yàlla may ndam lépp ki nit la. d'accord du saane kaay du saane du saane ngi noonu du saane ñëw na du saane ngi noonu ñëw na waaye Seydou Seydou condition yi ñu bëgg a liggéey kër Eumeu Sène nag tey neexul kon ñu siiba ci direct bi tey lu ngeen ci amul na ngeen xam ne tey condition yi ñu teg moo xawoon baaxul. direct dimanche bi dañu noo bàyyi ñu liggéey en l'aise mais combat bi nag li ñu jot a gis fii Kër Eumeu Sène presse bi seen liggéey tey dina xaw a difficile mais li may wax rek Dakar Buzz moom comme ay góor yàlla lan danañ ko jaayante danañ ko jaayante ngir ngir ngir ngir ngir ngir jëm a liggéey gis nga noonu gars yi Seydou gis nga noonu gurtu bi Seydou gis nga noonu gis nga ngi noonu gis nga gi gis nga glace gaa ngi noonu Seydou foo tune tey teg ngeen fi glace ndax lamb ji mbaa day lambi glace lambi dimanche ji lambi glace la woon de ah, ah ku faral Eumeu seen defal ma kër ku faral ki nga xam ne moom mooy Tapha defal ma defal ma loxo Alaaji Gaye gi noonu ma koj ko léegi wax ak moom Alaaji Gaye nuyu naa la. sant cher naa la yaa ngi yaa ngi en direct Dakar Buzz. ngeen waajee seen diggante ak waaw waaw waaw waaw ni ñu daan waajee combat yi rek ni ñu daan waajee rek lañ ko waajee. parce que dem daan ko rapidement ñibbi si ndax Tafatine moom bu Thiès. Alaaji moom nag mooy moo gën a neex a bëreel. Tafatine bokk na ci moo xam ne daa dafa dafa defarwaat ànd ak ay bokkam waa boobu ëmb ko indi ko. dëgg daana juum lu bari waaye léegi Tafatine gis nañu ñaari combat mujj juumut nan ngeen entamé combat boobu. waaw moom li mu indi buñ ko bàyyi xel ñu lu ñu indi rek la ñuy ñëw corriger. li ñu indi rek li ñu indi rek lañuy la ñuy appliqué li ci des moom méttiwul. ngay ko jege Eumeu Sène état de forme bi Eumeu Sène doy na la. bu baax a baax a a baax musul am lu mel nii sama gis-gis sama xalaatu bopp ak sama gis-gis musuma gis ci moom état bu mel nii. lan nga jàpp ni Eumeu tey moom la mën a def pour génn ci combat ndax ku naqari bëri la dajal. non combat li tax mu yomb xam nga mooy lan mooy Tapha ponkal la te fooram dóor la dañ koy jege dañ koy jege rek. yaa ngi en direct Dakar Buzz dafa mel ni direct bari na waaye benn du Dakar Buzz. benn du Dakar Buzz. ba pare monde entier nga lay seetaan. maa la ko wax ba yow yow sa bopp yaa ñu ko wuteeg ñoom. yow yow gone ginnaaw raay ah, sama goro rek nga. loolu daal sama goro la laaj ngeen sama goro la mi ngi noonu. asu ngom kaay asu ngom kaay mbokk ndey koy jur gis nga ko noonu muy magu ëmmat seen bokk ak ëmmat seen ndey ak baay. Seydou Kaay Seydou Kaay ba tey yéen a ci direct bi sëñ Fallou maa ngi lay ziar nakay tey Fallou Fallou Kaay Fallou yaa ngi en direct ci ba tey nan ngeen waajee seen diggante ak Tapha Tine. waaw xanaa entraîné entraîné bu doy rek waaw ñun pare nañ daal waaw. Tapha bokk ci mbër yi gën a naqaree bëri. ak noonu la yombee daan nag waaw. gis nañ combat mujj de li ñu yaakaaroon amu ko. waaw mais xam nga nit nit koo xamante tamit moom. du Saane du koo xamante ne du kaay koo xamante ne du jël kaay koo xamante ne du jël risque si làmb moom sa kook <laughs> kooku est-ce que mën naa bëre bu baax a baax a baax ndaanaanu bëri la moo toj Assane Diouf Assane Diouf waa mais ak si ñim daan bëre rek moom ay képp kil la amoon rek hmm. waaw da dal na si laalaake nag hmm. waaw ki dem diggante boo ñaa boo ñaa lam yaakaaroon newu fa de man bu ma toloon ni tafaatin di bëre ku tollook booy ñaa dix minutes dama lay faxas dem sama yoon ragal la Tapha Tine ragal la ragal la ku booy bi la doon daw moo tax mu bëree noonu moom war na rus loolu. est-ce que booy ñaa daw ku Tapha Tine. non booy ñaa moom boxeur la moom système bëreem noonu la day suul tànkam di diree waaw xam nañ ko ñoo ka yar. ñu gis combat bi euh, euh, euh, suba teel gi mais kër ama seen fees nan ngeen nar a demee arène nationale. waaw xam nga Pikine moom sang bi moom bu yëngoo ñëppay ñëw eh, waaw Pikine moom sang bi bu yëngoo moom ñëppay ñëw te xoola estade am na ñoom yeewooguñ te am na ñoo xamante ne ñu ngi may woo billet yi billet yi bi incha allah macha allah. d' accord jërëjëf kooku di eh, ka moom mooy Fallou Wade di suñu xarit di ko jege ëmbat seen di ndaanaan nag waaye ba tey Seydou kër ama seen ñi ngi wis rek jëlal ma gaay ñi wis rek ñi ngi wis ñi ngi wis ëmbat seen nag gisee génnagul boobaay léegi gisagul ëmbat seen waaye sarax yaa ngi noonu e borom bool kaay borom bool kaay yow borom bool kaay bool kaay bool noonu borom bool baa ngi noonu Seydou ku faral ah, Seydou Eumeu Sène yi bari na de ku faral Eumeu defal ma kër ku faral Tapha Tine defal ma loxo ma xool ñan ñoo gën a faral waaye di nuyu Cheikh Malick Cheikh Malick ki muy dajal di Tapha Tine la sañaat di bawal du may nit dara te lu ko waay may mu jël waaw sant yàlla rek ma ne ko sant yàlla rek ndax ki waajal tamit ku mat a waajal na boppam ba pare di ko ñaanal rek nag yàlla may ko ndam bu sedd guy te dara je Seydina Mouhamed nan ngay waaw soulagé rek soulagement. waa soulagé rek. loo waa Dakar Buzz direct Dakar. waaw moom ñoom si ca kaw kanam rek ndax ñu ngi def. waaw ñu def liggéey bu rafet macha allah. waaw kenn da koo waxee. Dakar Buzz noonu ñu ngi nii buntu kër Eumeu Sène ndeysaan mbokk yi dimanche dimanche le 12 novembre jabaru Eumeu Sène ngi noonu di muur mu ngi noonu di jàll ndeysaan saan oh jabari Eumeu seen ngi noonu doon jàll léegi mbokk yi ndeysaan ñu ngi fi nga xamante ne bii mooy Petit Mbao buntu kër Eumeu seen tey la war a jëflanteeg la géant di Bawol Tapha Tine njool moomee nga xamante ne bii macha allah ku ñu jox avance am say mbokk bu ñu tëddee bu ñu du ñu nelaw tey la ñu war a jëflante fële ci arène national di bis ba nga xamante ne bii bisu làmb la amateurs yi ñu ngi ko doon xaar axlu làmb yëpp ñu ngi ko doon xaar mbokk yi ndeysaan seen naa oto Eumeu seen bi traverse sànq mel ni Eumeu seen nag léegi mu génn daal di dëgmal fële nga xamante ne bii mooy arène nationale digganteem ak Tapha loolu ci kanam lay doon ndeysaan mbokk yi di combat ba nga xamante ne bii combat gladiateur lañ ndax ñoom ñaar ay ndaanaan lañ ay champion lañ ñu ngi noonu di sareex ay ndox gis naa ca buntu kër ga ñu teg fa benn benn paan ba nga xamante ne bii macha allah cey paan ba la ca nekk Mansour ak ko bëgg cey la nekk ca paan ba Mansour ak koo xam cey la nekk ca paan ba Mansour ak koy wër cey la nekk ca paan ba Mansour dimanche bu jot moom lay fa fële nga xamante ne bii mooy seeraas bokk yi mi ngi noonu Tafatine Eumeu Tafatine Eumeu Sène ci kanam tuuti arène nationale incha allah ñu gis combat ba nga xamante ne bii combat bu doy waar lay doon dafa mel ni nag maa nga waaj a génn parce que maa ngi gis ñuy installé ndënd yi bokk ñu ngi préparé li nga xamante ne bii moom mooy duma duma ndënd yi allah te Eumeu ku ne xam na ne bu dee génn dënd yi rek day jokk yëngal incha allah mbokk yi ci kanam tuuti Eumeu génn ñu ànd ak moom dem arène national mooy suñu xarit waaw am ndam bu soobee yàlla waaw am ndam xam nga ñun mënuñu wax mënuñu si wax parce que ñun wax indiwuñ fi dañ jëf moo ñu fi andi ñun Eumeu Sène diggante ak Eumeu Sène non nit la boo gisee ni ñuy sonnee nii Eumeu Sène rek moo ñu ko ji Eumeu Sène Eumeu Sène bu ma neex ma ne Sénégal moo fi gën ji ko que ñun ñun ñun dañuy ñëw mu traité ñu foo xam ne nii teg ñu foo xam ne nii sax ñun dañ mérité wuñ lool Eumeu Sène képp kuy ñëw këram rek yow sax yaa koy gënal boppam dinañ la toppatoo dinañ la Eumeu Sène daal ñun amuñu fayam ñun daal li ñu koy ñaanal mooy am ndam rek. d' ci kanam lay leer loolu nga noonu gis nga noonu gis nga kaay si waaw yow la ngi ak Pape Diouf borom Bambey di kenn ci Eumeu Sène di kenn ka nga xamante ne bii chaque année day organiser làmb Bambey Eumeu day ñëw soxna si day ñëw loolee waral bu Eumeu organiser moom tamit day bàyyi lim jàppoon yëpp ñëw jàppale si ko doom day ñu ngi lay maa leen di fay bu baax di leen ziare ziare waa Lutte TV vraiment macha allah. ëmm sama grand frère la moom bu xewlee dara moom daanaka combat yi bu amee bu desee un mois sax dootuma nekk ci jàmm chaque jour maa ngi ci combat yi quoi. dem ci guddi ba léegi ñoo fi waaw di waajal incha allah fas yéene dem stade di ñaan yàlla may ñu waaw combat la xam nga combat bi li la wutale mooy mos ñoo bëri ñaar ñu ngi doog a bëre combat jànq la mais nag ñun loolu jaaxal ñu quoi en tout cas daal ñoo ngi waaj ñoo ngi dem stade di ñaan yàlla may ñu ndam ci barke Serigne Sall. waaw émo bi ma ko gisee mujjee gis barke dem rek barke dem ci guddi incha allah ñoo nekkoon tey suba encore ñoo nekkoon incha allah waaw. noo ko gisee tey ci suba. waaw mu ci jàmm mu ngi ci forme mu ngi ci confiance bu rëy a rëy macha allah waaw vraiment alhamdulilah quoi. tey mën nañu xaar Eumeu Sène bi nga xamante ne bi moom la ñu gisoon contre Gris Bordeaux. non mën nañu gis sax Eumeu bu gën a raw boobu. waaw waaw bu gën a efficace bu gën a agressif. waaw parce bi moo ko laaj. parce que tafaatin dafa wax ne moom moom moo ëpp doole mais dina xam ne yàlla mooy buur incha allah ñoo koy xaar ci biir géew bi mais sa diggante ak ëmb boo ñu ci doon ñëwala. waaw sama diggante ëmb yàgg na def na 15 ans 16 ans jëm ci kaw sama grand frère la moom fu ma ko mu wuyu ma fu ma woo ma wuyu ko seen famille yëpp muy loolu ëmb daal mooy man may moom waaw. voilà wax supporters yi. supporters yi fair play te ñaari cas yi moom vraiment macha allah xam naa ne fair play parce que man bawol bawol mooy sama lépp. bu doon bëre sama kilifa sama papa sax moom lay faral. ragal pété day xañ ci Serigne Saliou Mbacké <laughs> ay daan ñibbi rek incha allah ñu ngi waat mbaaw incha allah fête victoire bi